mbokk yi compagnie Serigne Seck Sénégal C3S moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku C3S bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbind bi dina door benn fan ci weeru janvier 2021 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru janvier bi nag mooy concours zonal bi ñuy am amal jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépôt la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. solo tànk yi tànku nemmantiku la tànku nuyoo la tànku sant la ak gërëm depuis ay weer ñu ngi koy def yow nag nga defal ñu façon bii bi nga ñëwee ñu waxtaan nga ni ma dem bëgg nga ñëw nuyu suñu gaañi ma rafetlu ko pour ñëw nuyu leen gërëm leen sant leen di rafetlu ni ngeen di doxee ak ni ngeen di doxal ak seen doxalin di rafetlu li ngeen di wut ak tànk yi di rafetlu aussi façon bi ngeen koy def moo tax ñun ñu yaakaar bokk ak yow yaakaar ni pour réew mi ngir lu jëmale askan wi kanam dañu war jokkoo jokkoo boobu mooy ñaareelu solo sama tànk loolu laa la wax dama leen wax ni politique du pour nit ki doon dara du pour nit ki am dara du nit ki nekk ci dara politique ngir jëriñ askan la pour liggéeyal askan pour nekkal askan donc façon bi ngeen koy defee bëggu leen ci boole politique mais politique bu bokkul ak li ngeen di doxale dootul politique parce que politique gu sama bopp sa li nga am rek kooku du politique politique nit ñee tax muy jóg nit ñee tax muy nekk moo tax ñu ñëw talal leen suñu loxo ni leen nañu ànd bokk liggéey parce que parti politique yi mouvement politique yi société civile bi ak so euh, euh, activistes yi ñoom ñëpp seen action moo war converger ci luy jëriñ askan wi luy taxaw askan wi li nga fi lim tey muy suuf ak ndox suuf nañu moytu nañu moytu suuf nañu moytu suuf bu baax réew mi am na problème bu rëy bu muy dudd fii suuf a ko indi parce que suuf suuxa la képp koo laal suufam rek laal nga léppam il faut que ni ñuy doxale suuf ñu rafetal ko jekkal ko teg ko ci yoon boo xam ne li war ci suuf te jëf di ko jëriñ lépp ñu mën ko defandoo ak xel ak toogaay boo xam ne ñëpp daan ci gis seen bopp ay lu rafet la nañu ànd nag ñun ñëpp nga xam ne li ñuy def wuutewul mën na bokk te seen bo te seen bokk mooy li gën mooy liy efficace ngir ñu liggéeyal askan en tout cas maa ngi rafetlu bu baax sa format original bi ah di bëggee seen taxawaay yow nag ñu di la gërëm di la sant fa lay daanele xam nga Barthélemy nga tagg mais man yow laay tagg parce que ñu mel ni yow gis nga réew day am toujours pour développement réew mi ak lu jëmal réew mi day am ñoo xam ne dañuy doon ay avant-garde dañuy doon avant c'est-à-dire lu ci mënta ne rek ñu ñuy xëcc la dañuy nekk ca kanam parce que gëm nañu doyloo nañu am nañu fit am nañ fulla gëm nañ li ñuy def et li ñuy wax xam nañ ko te jaral na leen li nga tëdd kaso li nga tëdd police defe naa ne ñi politique 1960 ba léegi yaa leen ëpp li nga tëdd police ak kaso te defoo ko ngir yow da nga ko def ngir askan wi moo tax yow sa jëf yi ak sa présence rek dañuy interpeller ku nekk ci ñun soo su su la déggee ngay def war na la déglu pour que mu doxal pour que yëf ci mën réussir dama wax ne lii ngeen di def mooy li war képp koo xam ne yaakaar ngeen ni war ngeen ko jàppale war ngeen ko taxaw ngeen jàppale ko lu rafet la kooku en tout cas ñu ñoo ngi leen ci encouragé te yow ñu di la gërëm di la sant mais di gërëm aussi sa mouvement ak sa plateforme waa doy na ak waa FRAPP comme ni ma la wax nag daañu waxtaan parce que li ngeen bëgg lu baax la comme que da ngeen bëgg dajale askan wi nag da ngeen nanga waxtaane ko parce que waxtaan boobu mooy tax nit ñi bokk nit ñi ñëw en tout cas maa ngi lay féliciter bu baax maa ngi sant ñëpp waa doy na di sant encore une fois ñi fi ñëw di jéggalu ci tardé bi parce que tardé baaxul rafetul di gërëm ñi fi fekk sa membre yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ñu ngi leen di gërëm di leen sant ku nekk ci sa taxawaay di wax ne suñu booloo mooy suñu doole